te sunu gan Ababacar euh, Fall euh, salaamaaleykum. Euh, maaleykum salaam suma turandoo. ñu ngi lay ziyaarati di la sant bu baax ci li nga nangoo wuy si waxtaan ak ñun ci jamono ak Georges di ci Diop tey li ñu bëgg a waxtaan ak yow xaw naa takku ndax yow yaa jiite GRADEC di groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance Euh, seen kuréel gi li muy itoo bëri na wàllu démocratie. Hmm. wàllu yorin wu sell ak ñoom seen. bu dee ci wàllu yorin wu sell moom la ñuy njëkkee dégg nga sànq sunu focus bi ñu def hmm. ci euh, alali Idriss Seck gi am lu ci seen gannaaw ba mu ko déposé OFNAC euh, indiwaat coowal moomeelu ñii politique léeg-léeg gaa ñi di laaj fu ñu ko jëlee ndax liggéey nañ ko liggéeyuñ ko nu ngeen gisee yéen waa GRADEC tolluwaayu koom-koom. ci politiciens Sénégal yi rawatina ku jaar ci nguur. waaw maa ngi lay gërëm euh, Babacar di gërëm euh, sama xarit euh, Georges di nuyu également téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi déglu ci suba teel bi question bi nga wax dafa am solo am solo lool parce que dafay poser tey maanaam rapport maanaam nu mu tëdd diggante xaalis ak nu mu tëdd donc homme politique. comme ni nga ko waxee prétexte bi mooy euh, bërki démb yaakaar naa ne am na ñetti fan ci gannaaw déclaration de patrimoine bi nga xam ne Idriss Seck def na ko mu génn daanaka ci biti ñuy yëpp génne ko gannaaw bi nga xam ne xëy na ñaawlu loolu mbir mi le fait ñu génne ko ci biti alors que fi ñu toll ni suñu législation texte yi nga xam ne moom moo tënk nag dafa ne déclaration bi dafa war a am un caractère confidentiel kenn waru ko génne loolu benn la mais au delà de loolu problème bi muy posé gannaaw génn na of naa gis nañu sax def nañu euh, communiqué. di seetal seen ñoom di seetal seen bopp bu leen ci kenn génn xam nga loolu rek doyul. naam def nañu communiqué man doon naa gën a nekk à l'aise bu fekkoon ne ñoom dañuy wax ne non seulement génnewuñu waaye ñi génne la ñu wax sax dëppawul ak li am xam nga waxuñu loolu dañ ne rek génnewuñu donc ce qui veut dire que donc la ñu déposé am na. maintenant naka la génne kooku beneen mbir la boo xam ne dama yàpp ne bu fekkee ne dañ nekk ci état de droit. pour euh, procureur waroon na autosaisir ñu def enquête dégg naa président sa dinañ def enquête ci li nga xam ne en tout cas moom lañ jàng ci taskatu xabaar yi mais loolu déjà problème bu rëy rëy la alors da ngay poser au delà donc du fait que divulgué nañu tey homme politique yi naka la ñu mën a def ba am alal ju noonu parce que alal bi boo ko xaymaa bu fekkee li ñu wax dëgg la maanaam tey mën nañ ko jàpp diggante peut-être trente ba quarante milliards parce que wax nañ ci benn terrain boo xam ne rek vingt milliards cent hectares yoo xam ne nit ki nañ am na ko ci forêt Bandia ak leneen ak leneen ak leneen ci diggante maanaam ñoo xam ne xëy na ci première alternance ba 2000 la ñu dugg ci nguur ak ndox yi ci jot am yëpp ñu génn et cetera ba duggaat alal jooju donc di nga ne naka lañ mën a def donc ba dajale loolu. te donc bu euh, maanaam sax kenn war ko personnaliser dafa jéggi loolu maanaam personne Idriss cinq ñu bëri gis nañu 2012 bi président Macky Sall di doori ñëw bi ñu déclaration de patrimoine moom bi ñu ko ficelé ay mbiru milliards lañu ci tudd. donc loolu problème la am ñu ni huit ñoom ñuy leeral ne trois milliards waaye voilà mais trois milliards sax dafa bëri même trois bëri na ci ñoo xam ne dëgg-dëgg vraiment ba ñu dëgg nekkee ci nguur ak léegi bon yàggul ak boo xoolee charge yi tegu seen kaw yore parti war ko doxal ak yooyu donc loolu dama jàpp ne war nañu eh, dafa jot actuellement ñu tëggaat xëy na taxi yi nga xam ne donc moom mooy euh, euh, justement justement ci laa bëggoon ñëw est-ce que li nga xamante ne lew na la te nga bëgg jiite réew di wax waxi leeral est-ce que jar naa nëpp dëgg-dëgg jarul nëbb man de loolu mooy sama xalaat waroon nañ ne nit koo xam ne da ngay def déclaration de patrimoine loolu moo tax ma ne waroon nañu tëggaat 40 milliards nag neexul assumer neexul siiwal euh, voilà waroon na ñuy euh, tëgg tëgg texte yi wala di ci xalaat war nañu xëy na ne boo nit ki kat bu fekkee ne danga nga def déclaration de patrimoine am na montant boo xam ne bu fa àggee vraiment il faut que ñu càmbar procureur càmbar wala organe de contrôle yi càmbar. enquête nga mën a voilà enquête waaw nga mën a euh, xëy na tey vraiment prouver li ñuy wax euh, licéité wu xaalis bi xaalis bi fa mu jóge est-ce na wala. loolu kay CREI yi amoon na ci yoon. waaw normalement moo tax may la donc vraiment mbiru état de droit rek sooxe na fii parce que gis nga loolu dinañ ko wax nii mais gis nga fii ak ñaar ñetti fan coow loolu wàcc ñu jàll ci leneen. et loolu nag ba kañ c'est-à-dire que à chaque fois ñu yëkkati nit ñi wax ci presse bi citoyen ñaar ñetti fan après ñu fàtte nit ku continuer dem utum dépense bi ci la nag waaw mais je pense que loolu utum dépense yi mais dafa nekk loo xam ne pour man dañ ci war a dut baaraam indi ci ay leeral parce que réew mi quand même mënul continuer noonu loolu dama jàpp ne daal vraiment c'est un problème majeur boo xam ne ñun am nañ ko tey boo xoolee ñi fi ëpp alal daanaka presque ay politiciens lañu mais est-ce que lu faussé jeu bi ndax pour nga jiite réew daanaka boo xoo boo ko xoolee borom koppar rek kay mën a def yenn mais bien sûr doo gens dafay indi d'égalité voilà entre candidats yi parce que tey bu fekkee yow da nga ñëw am milliard kii ñëw xëy na donc di def campagne di laaj baatu réew mi amul sax xëy na euh, téeméeri million et cetera donc déjà da nga koy xool ci bu ñu demee ci campagne électorale rek nga xool ci affiche yi maanaam ñi nga xam ne dañuy jënd panneau yu mag a yi vraiment ak yenn posters yu ñuy def ak yooyu nga xam ne Sénégal yëpp dañ koy kii ak candidat yoo xam ne xëy na mënuñu sax defar photo en en couleur. est-ce que du loolu sax dafay indi déjà rupture moo waral loolu sax moo waral ñenn ñii di def ay campagne de levée de fonds parce que xam nañ ne ñee yor nañ ñun itam faw ñu wuti. waaw parce que législation bi dafa sooxe foofu comme nii xam nga amul benn législation boo xam ne vraiment wax na ci wàllu financement des partis politiques parti amul dara loo xam ne. non seulement dinañ leen ko jàppale ci seen financement mais même wax campagne te alors que boo xoolee réew Afrique bëri dañu légiférer ci question boobu ci wàllu campagne nit ñi dafa am ndàmpaay boo xam ne dinañ leen ko jox dimbali leen ko par rapport ak seen niveau de représentativité ni ñu toll ak ñoo xam ne même bu fekkee ne xëy na nekkuñu ci assemblée moo dinañ leen jox li ñuy wax donc dañuy jox mbiri yi waaye ñëpp ñu tolloo mais au moins dinañ la mën a jàppale mais bu loolu amul fi mu ne nii euh, depuis ñaata at ñu ngi koy wax depuis jamono Abdou Diouf ñu ngi wax financement des partis te loolu amul parce que volonté politique amu ci parce que ñi nga xam ne ñooy jiite mais bëgguñu ñi nga xam ne donc dañuy xëcc nguur gi am moyen pour mën a kii parce que xaalis dafa am solo ci politique waaye nag fii dayo bi ñu ko jox nit ki mu jaral ko nu nekk mu ànd ak ay lobby pour am xaalis wala muy mën a def vraiment naka su noonu parce que bu ñu doon def enquête dinañu gis ne vraiment fortunes yu bëri yu bëri yu bëri jaarul yoon loolu nag ça pose un problème vraiment ci wàllu transparence ci wàllu nu mu tuddati démocratie ci wàllu éthique ak morale est-ce que lii du euh, gën a firndeel euh, lii waa Transparency International génne fan yee euh, waneeti ne Sénégal ci wàllu ger ba léegi mi ngi ci guddi gu bët setagul ci jël ndaare ci wàllu tolluwaayu ger corruption ci àddina mais loolu dë dëgg la Babacar loolu dëgg la parce que xam nga li ñuy wax dañuy wax li ñuy wax ni indice de perception maanaam nit ñi ni ñu gisee parce que même bu fekkee ne nit ñi dañ ne par exemple nit ki kat am na nangam wala am na nangam wala nit ki am na nangami suuf nangami kër gannaaw amul enquête rek nit ki déjà kenn mënu ko teree mu xalaat ne nit ki fan la jëlee loolu ñuy xam nga donc indice de perception parce que nit ki loo xam ne leerul ci moom mais dina ci xalaat dina dina ci njort et cetera mais xoolal tey boo duggee ci yenn quartier résidentiel yi fii dugal fii Point E dugal Almadies et nga gis temps xeesu xeetu maanaam tabax yi ñuy tabax ah, ni mu bakkanee ak yu demee noonu yenn saa boo defee ba ci biir sax ñu la ah, kii homme politique bi moo ko moom wala ancien ministre yi wala nangam ak nangam mais loolu je pense que réew mi bu ñu ko bëggee vraiment euh, liggéey il faut que wàll boobu ñu gën ci mën a taxaw parce que président Macky Sall ba ñu ko falee ba mu ñëwee dafa insister gestion sobre et vertueuse ak euh, nu ñu koy. reddition des comptes ak yooyu est-ce qu'il était pour euh, wax loolu. waaw moom mu indaale alal ju toll ci ñetti milliards. ci <laughs> nguur justement ah. mais bu loolu bu loolu sax mais dañu gis maanaam. ci wàllu doxalin ak yorin vraiment mbir mi demewul noonu tey gis nañ ne tey la waalo gën a ay chaque jour nga dégg vraiment ñu wax fi ay nit ñoo xam ne ñu ngi yore ay milliards mënuñu wax fu ko jëlee et cetera jour nga gis. ay scandale financier kenn ku bokk APR. ñu euh, sonal ko ci mooy problème bi maanaam mbir daal bu amee. yéen taskatu xabaar yi di ngeen ko yëkkati ñu wax ci ñun société civile ñu génne communiqué wax mais bu demee ba ñetti fan euh, wax ja fayat ñu fàtte ñu jàll ci leneen mais loolu nag il faut que ñu taxaw évaluer déjà suñu corps de contre li ñu am jéem a xool naka lañ leen di mën a dooleele par exemple boo jëlee euh, OFNAC xam nga OFNAC li ñuy wax autorité administrative indépendante la amul pouvoir de sanction day def enquête du baaraam ci mbir daal di jël dossier bi jébbal procureur bu yàggul gis nga fi présidente bi daan ne way jébbal nañu def naa lu man ñaar fukki dossier xaw ma ak ñaar xaw ma ak juróom-ñaar procureur moom mais gis nañ ne dara du ci xew bu fekkee ne yow maanaam Euh, yow ak ñiy ji jiite réew mi yéen bokk boor bi ngeen di xool dara du ci kii bu fekkee na xëy na bokku leen boor bi ngeen di xool dërëm sax buñ la ko tuumaalee ñu yóbbu la ci ndungu seen xam nga loolu déjà dafay indi loo xam ne euh, ñàkk yemale la donc corps de contrôle yi war nañ leen dooleel seen i rapport ñu koy génne à temps gis nga bu yàggul euh, Cour de comptes toog nañ fi ñaata ñaat ñaata at ñett ba ñeent génnewuñu rapport ba ñu génnee boole ñetti ki génne ko def naa ne 2019 ak 2020 génnul IGE day génn rapport et cetera mais finalement du am benn suite alors donc je pense que il est bon tey fi mu ne lu ci mel ni OFNAC ñu évaluer ko après 2014 lañ ko lañ ko sàncoon ñu ngi ci 2021 sept ans après ñu xool la ca sooxe ak tey bon demande sociale la woon naka la ñuy mën a def pour léegi joyanti ko pour jox ko pouvoir boo xam ne directement moom mën na saisir. Euh, euh, euh, tribunaux yi yóbbu nit bu ko defee yow bu ñu la tuumaalee. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga ni politiciens yi duñ def loolu de. waaw mais mais normalement moo tax gis nga dañu war a tey xool ni ñuy def politique anam yi ñu koy defee ñu tëggaat ko mais loolu nag dafa laaj ay changement de comportement dafa laaj tey éducation parce que tey nit ñi dañuy dugg ci politique vraiment pour am alal bu njëkk ba nit ñi dañ ci daan dugg am idéal am lu ñu gëm mais léegi nit ñi dañ ciy dugg pour am te loolu nag vraiment mënul kon ne moo tax boo gisee parti yi di bari di bari tey ñu ne ñu ngi ci euh, ñetti téeméer lu topp parti mais loolu la parce que problème bi yëpp c'est l'accès aux ressources. <laughs> mais naa naa fexe ba jot ci yëf yi wala ma ànd ak ki nga xam ne moom moo nekk ci nguur vraiment mën na jël sama wàll ci ci nakk yi loolu nag réew mi mën mënut a continuer noonu. of nag cour de euh, cour des comptes IGE yooyu yëpp a ngi fi ñu bëgg a yokkaat parquet financier est-ce que dana am lamu ca indi comme saafara wala. ce sera benn organe de plus. man jàpp naa ne organe de plus rek lay doon parce que gis nga mën nañu xëy na fusionner corps yooyu yëpp vraiment cour de comptes ak OFNAC ak yooyu yëpp ci ne ñu assigner leen vraiment ay mission donc yu bees parce que gis nga ci wàllu tex Sénégal defe naa ne vraiment ñoo ci raw tex yi moom boo ko liiree vraiment da nga naan gongo franchement on a de jolis textes de bon textes mais lii problème bi mooy. la ca taxi yi ko doxal wala bu maanaam wala dañuy sax ba ay stratégie de contournement léegi bu ñu am waxee defee ay texte texte ne lii la ñu wax maintenant ca nit ña ñuy tànn ñi nga xam ne ñoo koy jiite foofu la gars yi di defee li ñuy wax euh, wër ndomm stratégie de contournement dañu fay teg ay nit yoo xam ne daanaka presque boo xoolee euh, ay nitu nguur gi la ñu donc de sort que pouvoir yooyu dañuy neex ñu domestiquer leen ba nga xam ne tey fu ñu leen xooloo fan la ñuy xool wala lu ñu bëgg a def dinañ ko def vraiment te dara du leen ci fekk loolu nag. jàpp naa ne vraiment war nañ ko seetaat donc ci wàllu boobu daal damay wax ne est-ce que jarul waat sax tey ñu def assise nationale comme nañ ko defee woon ca euh, defe naa ne avant 2012 jamono parce que saafara yi jàngoro yi bari na di lii lépp kenn mënul continuer di ko xool il faut que ñu xool institution yi naka lañ koy tëggaate naka lañ leen di renforcer naka lañ leen di jox doole ñu nekk ay autorités yoo xam ne vraiment dañuy am indépendance bu mat sëkk boo xam ne dinañu am euh, sañ-sañ buñ la yow Georges lii yaa ko def. boo ñëwee boo mënul joxe ay explication yu leer yu doy vraiment ñu nëbbu la jant bi. est askan wi war a xeex loolu tam du ñoom ñooy randalloo randalkat yi ndax euh, bu nit yoree nguur rek askan wi tam topp ko euh, lu ne ñu laaj ko ko lu ne ñu bëgg mu saafaral leen ko hmm. nit ñi euh, tamit dañoo sonal politiciens yi. est-ce que du nekkul ñoo leen di pousse ñu sàcc. lool moo tax xam nga wax naa ne il faut que tey ñu dëkkaat mentalité yi parce que dañu am li ñuy wax naa le rapport mu tëtti donc des sénégalais à l'argent tey yow bu ñu la falee rek. nga ñëw nekk ministre wala nga benn ndomba tànk rek. parce que politiciens duñ ay extraterrestre ci askan wi lañ jógee. voilà moo tax may la saay li ñuy def vraiment loolu yëpp euh, mooy taar yi nga xam ne tey moom moo nekk ci société sénégalaise bi moom mooy nekk ci parti politique yi moo nekk ci daayira yi moo nekk même ci euh, organisation société civile mooy le plus souvent manque de transparence wala boo yore ndomb tànk nit ñi li ñuy njëkk ah li de vraiment donc gërëme ko sa ndey ak li ndey la ak bàyyi la ñu commencé la tagg. bu ko defee nga commencé nu mu tëti donc di génne di joxe am nit ñoo xam ne donc dañ lay topp mais bis boo ñàkkee sa teraanga boobu nga am wala position boobu nga am mais dootoo gisati kenn loolu nag yaakaar naa ne dafa laaj vraiment tey ñu jéem a euh, yaraat nit ñi te loolu ñu jéem a tëggaat. Mhm. vraiment ni ñuy xalaatee politique ak suñu doxalin de façon générale. lan mooy seen responsabilité yéen waa société civile googu ndax yéen dañ leen di dégg rek est-ce que da ngeen dem ci biir askan wi ngir tëggaat mentalité yooyu. waaw loolu vraiment ci côté boobu liggéey société civile dafa des lu bari parce que nee naa la gis nga loolu am taar yooyu am ñu koy reproché parti politique daayira yi association yi tam mu ngi ci biir société civile bu ñun na bonté tey société civile nekkul benn dànk tey ay kuréel yu bari la ku nekk léegi da ngay wooye sa bopp société civile ñun ñëpp bu ñu xëyee tamit société civile la ñuy def mooy wuti xaalis fan la projet nekk wala fan la financement nekk ñu dem jëli ko waaye liggéey ba ñu war def c'est-à-dire tey pour participer à des consciences Euh, forme li ñuy wax une opinion publique donc vraiment forte euh, vraiment pour man dama wax ne des na xëy na am na lu ñu ciy def am na ci ñoo xam ne ñu ngi ciy def ay jéego mais dafa des des lu bari loolu nag il faut que euh, pour man ñu def assise société civile Sénégal kan mooy société civile lan mooy société civile na lu ñu war a def ak lu ñu warul def loolu yëpp problème la yoo xam ne nii yu ñu war a réfléchir la pour que vraiment li nga xam ne mooy suñu maanaam wàll ci mbay mi ñu mën ko def vraiment parce que société civile dafa am solo ci réew mais nag nii nga xam ne moom lañ koy euh, vraiment doxalee Sénégal euh, problème la daal des na lu bëree bëri bëri. ñu dugg ci wàllu démocratie nag euh, ak élection rawatina yi ñuy séntu élection falu maire yeeg njiital département yi gis nañ ni fichier bi opposition bi daa bëgg ñu càmbar ko mooy boyet bi nga xam ni. turu ñi war a wote fa la nekk seen xel de caay tey ñu war nañ war nañ ko saytuwaat am na boroom xam-xam yu jóge bitim réew yu war a ñëw saytu ko yegg si nañ normalement war ko def ci diirub ñaari weer foog naa ba jàpp ñett. ñeenti weer ñeenti weer. Mm. Euh, yéen waa GRADEC nu ngeen gisee euh, loola est-ce que fichier bi taq na taq goo xam ni war nañ koo jéem naan dañ koy setal. waaw man dama jàpp ne euh, ñun xam nga am nañu ñun ay ndaw yu ñu toogal foofu parce que ñun GRADEC ñu ngi bokk ci benn plateforme bu ñuy wax pacte am na ñaari représentant yoo xam ne ñu ngi ñu toogal foofu ci commission de dialogue ba ak ci comité de suivi bi. rawatina ki nga xam ne mooy suñu président muy président Mazine Ndiaye ci ñi nga xam ne ci commission solidaire bi la ñu bokk daanaka comité de suivi bi sax moom moo ko jiite. donc ñu ngi ci mais man sama wàllu bopp euh, vraiment aw ma yaxin ne mbir mi du jur dara je ne suis pas convaincu même de l'opportunité de de l'audit ci ni ma ko mën a waxee. parce que gis nga tey audit bi dina nekk juróom-benneelu yoon ñuy def audit depuis maanaam première alternance ba diggante 99 ak 2000 nit ñi indi nañ fii coowu audit. ne audit ba fichier bi baaxul carte israélienne coow à l'époque vraiment ci jamono ñu Ablaye ñu def audit ba ñu defee audit la ñu gis ne mbir mi vraiment jarul door sa doom la ñu gis defe naan bu ñu defee moo doon 2000 personnes yoo xam ne des fois dañu nekkoon ci fichier bi ñoo xam ne dañ leen a waroon a génne ñu génne leen xam nga loolu bariwul ba ñu defee euh, refonte totale fichier maanaam ñu annuler liste yi defaat refonte totale indi carte numérisée yi ci jamono Ablaye def naa 2004 2005 bañ ca jógee def nañu benn audit 2006. bala ñuy dem élection ba ñu defee audit ba vraiment gis nañ ne aussi dara tukkeewu ci 2009 waa CPC def audit génnewuñu résultat yi ba léegi 2012 2010 2011 ñu def audit man ca laa bokkoon ñu def li ñuy wax comité de veille ñu def ñaari at ñu génne 108 recommandations waaye la ñu waxoon mooy fichier bi baax na waaye xëy na am na ay jubbant yu ndaw yu ñu ci mën a def ñu jóge ca 2016 ba ñu defee refonte partielle bi ñu defaat audit en 2018. résultat yi ñu ne waaw 98 pour cent. baax na fiabilité. Euh, ñu ngi demaat ci benn mooy juróom-benn audit mais audit yu bu ci yu nekk lu ñuy wax rek mooy fichier bi daal baax na. Hmm. mën nañoo dem élection ak fichier bi daanaka rëq-rëq yu ndaw moo ci nekk donc est-ce que léegi problème bi vraiment fichier bi la. man je pense que coow fichier war nañ ko mën a dépassé te li may wax tey perspective bi ñu war a tey euh, jublu. mooy ñu hmm. fexe ba delluwaat pour man ci ancien système bi daal sama xalaat la maanaam taxaliwaat carte d'identité yi wut. carte électeur à part carte d'identité à part fichier bi ñu jël ko ñu confier ko ab autorité indépendante dama ne ci mel ni Sénat ils sont outillés am nañu service informatique mën nañu leen confier gestion fichier électoral wala lu ci mel ni agence nationale de la statistique parce que problème bi yëpp problème mu confiance la tant fichier bi maanaam ministère de l'intérieur moo ko yore ministère de l'intérieur même bu fekkee techniciens yi fa nekk ay jàmbur lañu républicain lañ dañu am kilifa wàllu ci wàllu politique du dëgg donc tant que problème boobu mi ngi am il faut toujours ay suspicion am te gis nga fichier dafay dund tey fichier mën nga ko def nii ñu jógee ci audit bi ñu ne fichier bi baax na mën nañ dem élection ba ñu demee bay. élection go élection googu ci wàllu boppam sax euh, bokkoon nga ci ñi nga xamante ne vous étiez convaincu que comme ñii dañoo. laaj ko du am euh, est-ce que tey gii nii élection mën na am deux mille vingt et un d'autant que. Euh, euh, euh, opération audit fichier électoral ak processus électoral dana jël ñetti weer ñeenti weer. waaw xam nga loolu la ñuy wax ci këyit yi terme de référence yi ñu ne ëpp la ñeenti weer gën fee bari mais jàpp naa ne bu fekkee ne vraiment am na ci liggéey bon nañu raccourcir délai yi pour def ko ci diggante vraiment ñaar weer wala ñaari weer ak tuuti. élection am 2021. waaw après bu parce que bu loolu paree waxtaan yi nga xam ne nit ñi juboo nañ ci ci dialogue politique bi. yi nga xam ne dafa am incidence ci code bi il faut que boobu ñu soppi ko def ko ay loi ñu euh, dugal ko ci code électoral lu ci mel ni mbiru maire yi ni leen di faleeg yooyu yooyu maanaam yi nga xam ne ponk yi ñu juboo bu ñu jógee ci loolu ñu ubbi liste électorale ñu révision exceptionnelle parce que ñaari at a ngi nii kenn ubbiwul liste mais bu fekkee ne vraiment kam am nañu volonté dem élection ñu maîtriser donc délai yi raccourcir ko jàpp naa ne war nañoo mën a dem élection ci euh, ndeetalu at 2021 diggante octobre pour man ba novembre jëm décembre war nañu mën ba en dans tous les cas élections yi waruñu cee mën a génn mais débat bi nga xam ne moo am ci fichier bi daal pour man wax dëgg yàlla débat la boo xam ne mi ngi ñëw de façon récurrente war nañu fexe ba euh, saafara ko mu jóge fi parce que mënuñoo continuer chaque fois ñu naan fichier fichier fichier fichier donc euh, loolu problème la daal ci réew mi Ababacar Fall njiital GRADEC ñu lay gërëm ci waxtaan bi am na solo gërëm Georges